waaw jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi ñu ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yal na fi yàggaat loolu ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax mben dajaxu nay ba sala penda mi des si ngaraaf ñu gën koo xam ji Serigne Amdi Fall xalifa général de euh, Baye Fall naaru maam Khady yal na fi yàgg loolu ànd ak wér yéen a ngi fii ci Baye Fall gi ci kër maam Cheikh Fall gi feggoog am di faal mi nga xamante ni moo fi nekkal euh, maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal gudd fan ak yéen a ngi ci euh, bu mag bii nga xamante ni at mu ne ñu ñëw fii Euh, ci Baye Fall gi fekk fii ku baax ki muy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda muy Cheikh Mouhamadul Moustapha Fall muy daayira Mame Seraye Fall bi nga xamante ni moo nekk Côte d'Ivoire muy fédération Mame Seraye Fall bi nga xamante ni euh, Serigne Mbandiaye Ndiaye moo ko jiite ànd ceeg mbooleem euh, jëwriñ yi nga xamante ni ña nga Côte d'Ivoire délégation bu am solo Euh, agsi nañ fii ci euh, Baye Fall gi war a jébbal addee ji at mu ne euh, ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Baye ma Ndiaye Ndiaye ak mbooleem jëwri ni Baye Demba Faye mii porte parole bi Serigne Gili Fall indi sëñ Mour Abdoulaye Fall Ndar sëñ Mour Diouf xelkoom ki nga xamante ni mooy Baye Amdi Fall Mourid Sadikh sëñ Ousmane Niang ak mboolem jëwrin yi nga xamante ni teew nañ fii ci Baye Fall gi fas yéene jébbal addee ji Serigne Amdi Fall Modou Mbend xalifa général de Baye Fall kon sëñ Mbaye dañuy topp ñu dem dëgtal mbokk ñuy topp ci biir réew mi ak bitim réew ziar bu mag bi nga xamante ni fédération fondation Maam Cheikh Ibra Fall mi ngi koy ma at mu ne eh, fii ci Baye Fall gi ci sëñam di Fall xalifa général de Baye Fall. ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax mbenda jaxu nay ba sala pend mi des ci ngaraaf ardonga maafaan waaye pël baa nga mboobeen muudu mbenda fall jàmbaari carrière waaye muudu mbenda fall euh, say noonu du ñu ree mbokk ñu topp ci biir réew mi ak bitim réew yéen ngi fii ci Baye Fall gi fii nga xamante ni naaru maam Khady Niang fi la ne muy sëñ Amdi Fall muudu mbenda xalifa général de Baye Fall yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér yéen a ngi feggoog fédération maam Serigne Fall euh, Touba Côte d'Ivoire bi nga xamante ni euh, Serigne Mbandiaye moo ko jiite siyaar bi nga xamante ni ñi ngi koy amal at mu ne moom la ñu war a jébbal sëriñ bi ci kanam ñu feggoog sunu sëriñ sunu xarit euh, sëriñ Jili Fall ibnu sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar yàlla na fi yàgg lool euh, ànd ak wér fekk fi mboolem njabootuk euh, sëriñ Amdi Modou Mbend ak yëpp rek sëriñ Cheikh Fall. ibnu sëriñ Amdi Modou Mbend fekk nañ ko fi fekk fi sëñ Xalifa sëñ Ngunda ñu ngi leen di ziare waat bu baax di jox seen wàccuwaay waaye xam naa kon bu ko defee dañuy jox ki nga xamante ni mooy porte parole daayira bi Baye Demba fay mu présenté délégation bi fi teew sëñ Modou Diouf Xelkom ak mboolem jëwriñ yi fi teew yëpp rek Eh, jërë ngeen jëf. ci bokki taalibe yi waa maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balwaaq di leen balaq li ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér yàggal fi Serigne Amdi Modou Mbenda njabootug Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. di ziar mboolem kilifa yi fi nekk ci jataay bi nga xam ne mooy jataayu fédération des Baye Fall bu Touba Côte d'Ivoire. ñëwoon tey jii ci sëriñ bi doon fi indi sunu liggéey bi nga xam ne nii moom moo jëm ci sëriñ bi jotaay bi nag ñi ngi ànd ak sëriñ Jili Fall moom sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar ànd ak sunu jëwrin sëriñ Mouhamadou Diouf xelkom mi nga xam ne ndoorteel fédération maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndigalal sëriñ Modou Aminata Fall. moom lañ ko tegoon ci loxoom mu mel ni muy tegale bu jub boobaak léegi dara soppikuwu ci ak yokkute rek lañ ci yëg ànd ak sëriñ Pape Magumba sekk mi nga xam ne mooy jëwriñu tuuba Adjamé ak sëriñ Ibrahima Ndiaye nekkal fi sunu baay su Souley Fall ci Touba Abobo sëriñ sëriñ Ali Niass Touba Gañwa waaye ànd ak sunu jëwriñ yi xam ne ni tey jii moo fi nekkal mboolem jëwriñ sëriñ Touba yi nekk Touba Adjamé Touba Côte di sëriñ Aliou Thiam ànd ak sunu baay Jibi Diouf ak sëriñ Ousmane Niang mi nga xam ne saafu fu nu jógee li nga xam moom la ñuy liggéey moom lañ koy dénk mu indil ñu ko ba fii ànd ak soxna yi nga xam ne nii ñoom lañ bokkal liggéey bi buñ ci tuddee soxna maam Bigé Ngom mi nga xam ne mën nañoo ne moo représenté mboolem fédération de Baye ci soxna yi Touba Côte d'Ivoire ànd ak soxna Yaama Ndiaye ak soxna Marème Touré ñu gën koo xam ci soxna Mère Touré ak soxna Ndey Ba Touba ajame ànd ak soxna Yacine Diop mi nga xam ne liggéey bi ndoortele dara ump ko ci yàlla dafa def mu nekk fii ci réew mi waaye ba léegi loxoom jógu ci ànd ak soxna Anta Thioune Touba Adjeme représenté fi soxna soxna Aram Fall mi nga xam mooy jëwriñu Touba Adjeme kon ci gàttal liggéey bi noonu la demee ànd ak sunu jëwriñ porte parole Cheikhul Khadim ca Touba Adjeme di Serigne Khadim Thiam ak Serigne Cheikh Dieng Passef waaye ànd fekk fi njabootuk Serigne Touba gi ak Cheikh Serigne Touba yi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom liggéey bi. bu ci tuddee Serigne Mbaye Ndaw moom Serigne Abdoulahi Ndaw moom Baye Cheikh Ndaw ànd ak Serigne Assane Gueye moom Serigne Modou Ablaye fal Ndar kon liggéey bi noonu la taxawee ànd ak sunu baay sunu jëwriñ ñun ñëpp ci liggéey bi fële ci Touba Côte sunu baay Ngana Gueye mi nga xaye moom moo fi teewal tey mboolem jëwriñ yi nga xaye ñoom ñoo nekk Côte d'Ivoire di seen kilifa kon liggéey bi noonu la demee ci li waaye nag di doole sant bu baax di ñaanal suñu jàmbaar ja sëriñ Mouhamadou Aminata Fall mi nga xam ne samp bi ab sampam la te ba tey jii saa fu nu xëyee di ci yëg ak yokku liggéey bi nag comme li ko sëriñ bi bëggee rek noonu lañ ko fas yéene defee di ñaan mu kàttanal ñu dooleel nu jox nu jumtukaay yoo xam ne ci leen ko mën a liggéey ba làq ngërëmam liggéey bi nag sëriñ bi yemalewu ko fenn mboolem koo xam ne nii yaa ngi tubaa Côte di liggéeyal sëriñ bi nanga jàpp ne fédération bay Fall bii sëb liggéey la sëb cër la foo ci yem yaa ci yemale sa bopp waaye sëriñ bi ñëpp la tàllal loxo kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan liggéey bi ñu fas yéenee jébbal sëriñ bi yàlla na nu ko nangul defal ñu ko fa àq yeggul te bu déwénee yàlla nañu yëg ci ñun yokkute goo xam ne nii danañ ko def ci jëf ci nga xam ne ni mooy sunu yéene ak sunu kàttan ak sunu pas ci sëriñ bi ndax sëriñ bi kat moom la ñëpp di sagoo tey jii kenn ku ne bëgg nga bokk ci maam Cheikh Ibrahima Fall ngir jëmmam ji ak taxawaay bi nga xam ne nii liggéey bi sëriñ mun Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér looyloo na ko ba jël lépp teg ci loxoom loolu nag am njàngat la ci képp koo xam ne nii bëgg ngaa liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall na nga topp ca waxam jëm waxoon ñàll yi de bari na lool waaye na ngeen aw ci wa ca digg wa mooy dem leen ci ki ma fi nekkal ngeen ànd an dem ci ki nefal Serigne Touba ne loolu mooy dëgg léegi ki fi nekkal bu ko fi matewut bàyyi leen ko fi dem ci ki fi nekkal Serigne Touba waaye dafa wëlbatiku ne fu ma toog ku fa toog boo xamut ma xamal la boo amut ma amal la kon nan jàpp ne Serigne Amdi Modou Mbenn mi maam Cheikh Ibrahima faal mu mat sëkk la lépp lu waay di jëf nan ci ànd ak moom te ci ay ndigalam yàlla na ko fi yàlla yàggal te wër wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, li sëñ bëggoon gëm naa li ci ëpp am na ndax mbooloo moo fa nekk di am mbooloom Cheikh Raye Fall ñu ànd booloo doon benn di xàccandoo di doon loolu sëñ bëggoon te waxtu ko sëñ bëggee rek njariñ yokk na ci ndax biñ fi ñëw daaw fañ aksoon weesu nañ ko di seeral sëñ bi de bi ñu sëñ bi yabalee ñu dem fa am na dëkk yu ñu àggoon ñeent dëkk yooyu seen i jëf. boole nañ ko ndax waa gañu waa ngi nii sëñ Aliou Niass mi di doole bi sëñ Cheikh Fall Mbawar waaye moo jiite liggéey bi sëñ Touba ba mi ngi ci biir ma nga ne toog euh, sëñ dem wax na may na ma waa Yaama Sukuru am na lu ñu yónnee kon liggéey bépp boole nañ ko te loolu sëñ bi bëggoon te barki dem ma ñëwee fi di ko siyaar te indi addi waa ma def na ma da nga fexe ba mu àgg fépp maa la jox ndigal ci kanam ci kanam bii kon ñoo xam ne lañ fa dox si woon rek sëñ bee ñu ko santoon mooy mbooloom Cheikh Fall ma fa ne nañ doon benn hmm. te xàccandoo di dóorandoo bu sëñ bi boobaa dañuy noppal sëñ bi noppal leen ndax boobaa bu amee yitte ci kenn la yem waaye ñoo ngi fa wax sëriñ bi nii nga xam noon noonu la góor ñëwee noonu la jigéen ñëwee ndax soxna bii nga ma nga ne ànd ak soxna yi di jàmbaar loo ci liggéey bi ndax waxtu wu ne lu góor ñi def rek di dinañ ci man xam naa ne loolu sax suñu démb bi nga xam ne mooy porte-parole mën na koo leeral waaw dañoo dañoon leeral loolu sëñ bi rek di sàkku sëñ mi ñaanal mbooloo mi na aji yëpp faju ci barki maam Cheikh Fall kon sëñ Demba nga nga jóg rek bu noppee sëñ mu jox ñu jox sëñ bi àddee ji. sëriñ bi ñu ngi lay siyaara di la balu àq ci jataay bi di ñaanal sa sang bu tedd ba sëriñ mu taqa Mbàkke mu yàgg fi te wér lool yàggal la ci sunu kanam ak mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall. di jotli kàddu ci turu fédération de Baye Fall bi nga xaye moom moo nekk Côte d'Ivoire ànd ceeg sunu jëwrin sëriñ Mouhamadou juuf mii nga xam ne nii ba sa mag ju baax ja xoolee ne ànd rek moo war tàqali ko defarul lu bari ca joxe ndigal ci ne mboolem luy àddi yu jóge Côte d'Ivoire dee leen ko dajale muy genn ngeen indil ma ko fii ma jox ki nga xam ne mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg ban ko defee ca mag ña ñu waxtaan tànn sëriñ Mouhamadou Diouf mii jiital ko mu yor fédération de Baye Fall liggéey boobe sa mag ju baax ji ñaanal ñu yëg nañ ci yokkute bu baax ndax xam na ne sampub sëriñ bi ca kanam rek la jëm loolu moo waral bi nga ko sëriñ bi soxlaa mu ñëw fiit liggéey bi yokk ba ñëw ci loxo sëriñ ma njaay njaay mi nga xam ne tey jii moo jiite fédération bi ànd koog mboolem commune yi nga xëye ñoo nekk Touba Côte d'Ivoire sëriñ Magumba Seck bokk ci sax njaboot moom sëriñ Cheikh mbake Fall mooy jëwriñu Touba Adjamé mi ngi nii toog sëriñ Ibrahima Ndiaye nekkal fi sunu baay su lay faal Touba abooba mi ngi nii toog Serigne Aly Niass Touba Gañwa mi ngi nii toog Touba Treichville sunu baay Ngànn Gay mi ngi nii toog nekkal la fa ak mboolem yeneen communes yi nga xam ne ni ñoom tey jii mën nañoo ne bu sëriñ Mandiaye teewee sëriñ Mat Diouf teewal ko fi kenn ku ci nekk sa liggéey yegsi na muy Touba yëpp gon Touba Koumassi Touba Marcory ak mboolem yeneen sous-région yi nga xam ne nii ñoom ñoo la bokkal liggéey bi te sa doom ju baax ji ñu di la seereel jëfam ji nga xam ne nii mi ngi koy jëf ci liggéeyub sëriñ bi bi mu fi ñëwee ren jii day ñëw foon ngir yitey boppam rek dafa ñëw ngir ndigal li nga xam ne nii moom ma ko santoon fenn fu fu nekk dem na fa comme ni la ko waxee. dem na Touba Yamou Sokoro njabootuk maam Cheikh Ibra Fall ga fa nekk mu boole leen xamal leen liggéey bi ni mu demee ba yónnee nañ seen liggéey Touba gañuwaayit it ba mu fa demee fekk fa Serigne Aly Niass mii liggéey ba da koo lu lool ba ren jëf nañ ci jëf ji koy suñ jort Touba Kokodi ban yëgee liggéey bi rafetlu nañ ko lool ba jëf ci seen jëf ànd kook soxna yi nga xam ne nii ñoom lan bokkal liggéey bi te biñ ci duggee ba léegi ak yokkute rek lañ ci yëg. ci njiital soxna maam Biige Ngom ma nga ne toog ànd ak soxna Yaama Njaay ak soxna Ndey Ba ci Touba Adjamé soxna Mariam Touré ñu gën koo xam si soxna Met Touré nga xam ne jàmbaar la joo xam ne nii sëriñ bi rek ko ñor xeeñtuut fu mu bokk ak fu mu bokkut mboolem koo xam ne nii mi ngi lay gis di gis yow sëriñ bi dana jëf ci yow lu mën ak lu mënut kon jëf ji nga xam ne nii indi nañ ko fi faal day loo xam ne nii day buñ sañoon saa fi ñëwee mu doon ak yokkute ba faw jamono nag xat na lool ndax addi jii day li muy yokk yokku jafe-jafe ya fa nekk mbooloo mi ñi ngi koy sàkku ngir nga saafaraal leen ko jàmbatul nag waaye dañuy yëglu ci sëriñ bi ngir mu dimbale ci suñu yitte yi nga xam ne nii moom lañ bëgg yitte yi nag paase wut lu saafu ndigale sëriñ bi ñëwee ñu jekku ko jafe bari na ñenn ña ña ngay toj seeni place am na ci ñoo xam ne dañoo bokk ak ñoom liggéey bi ñu yor tawat yoo xam ne daanaka moo leen ñëw fii kon loolu ñu ngi koy sàkku ci sa jëmm ji di ñaanit kàddu gi nga xam ne nii jox ko sëriñ jiili mboolem koo xam ne nii yaa nga ci liggéey ba na ko déglu te jëfe ko ndax kat la fay Baay Faal di yaakaar sëriñ bi di yëngutu ci sëriñ bi buñ dajaloo woon ci liggéey maam Cheikh Ibra Fall bi luñ songu daan ko te it la sa maam ji waxoon loole la ñuy jëfe rek ñal yi bari na lool waaye na ngeen aw ci wa ci digg ba wa ci digg wa nag mooy sa jëmm ju tedd ji toog di maam Cheikh Ibrahima Fall buñ ci jógee lépp loo xam ne nii bëgg nañ ko danañ ko am te luñ song daan ko kon ñoo ngi sàkku ci sa màggaay gi ak sa sa tedd nga ji nga ñaanal ñu taqaloo gi nga xam ne nii war nañ koo taqaloo ci képp ko xam ne yaakaar nga Serigne Touba ci liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bii ñu ànd ko di ko jëfe ba saa fu ndigal ñëwatee ñu jekk ko kàddu yi nag ñu ngi koy wax ci turu Serigne Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñu fédération de baay Fall nga teg ko fa mu yilif mboolem koo xam ne nii yaakaar nga maam Cheikh Ibrahima Fall ci liggéey bi di ziar bu baax sunu jëwriñ yi nga xam ne dañ koo waroon a njëkkee ndax mboolem liggéeyub Serigne Touba ba ak jëwriñ ya tey jii moo leen fi nekkal di Serigne Aliou Thiam mii kon ñu ngi koy siyaare bu baax di la xamal ne moo fi nekkal Serigne Magoumba Thiam mi nga xam ne moo yor liggéeyub Serigne Touba bi. kàddu yi nag lu ci dëng lu nekk ñoo ngi koy tuub bu baax dongo yi lii seen tawat ci sëriñ bi mooy ay jumtukaay yoo xam ne saa fu sëriñ bi jógee ñu mën koo jëfe dongo yi nga xam ni ñoom lañ fa teg ñuy jóg di fekki sëriñ bi faal ñaana leen ñu am ay jumtukaay mboolem koo xam ne fekk si nañ la lan yaakaar ci yow ñu fekk ko fa ndax loolu rek mooy suñu yitte ñu ngi si ziare bu baax di balu àq di la ñaanal si jotaay bi yal nañ ko yàgg fekkee tem ànd ak wér lool.

di yëkkati ay kàddu muy kàddu yu ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ am di Modou Mbenda jëm si ci njobootuk sëriñ Touba njobootuk Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko Abidjan ñëw fii mu doon fédération boo xam ne mbooleem ku nekk Côte d'Ivoire di góor di jigéen di mag di ndaw te bëgg Cheikh Ibrahima Fall fonk ko fonk ndigalal sëriñ Tuubaa moo tax ngeen dajale seen addiya mu doon ñaari million yu teg ay junni yu bari ñëw fii teew ci kanamu xalif général de Baye Fall di ko ko jébbal ñu doolee sant nag suñu rakk ji nga xam ne nii moom ngeen àndal muy sëñ ji lim sëñ Modou Ablaye Fall Ndar ndax dafa am jëf joo xam ne ca sëñ Ablaye Fall Ndar la déparé woon ñëw ba ci sëñ Modou Ablaye sëñ Modou Ablaye nag daa doonoon rakk joo xam ne daa fonkoon sëriñ bii bëgg ko ci xolam ba fu mu toll mu ngi ñëw këram di ko nemmi ko ñuy bokk di waxtaane loo xam ne ñun ñii nga xam ne nii ñoo doon njabootu sëriñ bi duñ ko yëg xanaa seen diggante woon ñoom ñaar rek. kóllëre googeet mooy dox ba ci sëñ jiili mii tey mu ñëw di toog ci kanamu baayam baayam it di ko digtal di ko tegtal di ko teete digganteem ak taalibe ci àll bi mu mu mel ni ñi nekk Mali ak ñi nekk Côte ak ñi nekk feneen ak feneen di leen wax ne nañuy def fédération di boole seen bopp di boole seeni xol di boole seen jëf mu doon benn ñuy ànd di ñëw di ko jébbal sëriñ bi ndax mooy li nga xam ne nii moo gën a noppale ci yoon wi kan ñoo ngi ciy santaat bu baax a baax a baax a baax kan sëriñ bi nee na mbooleem ku nekk Abidjan mbooleem ku nekk Côte mbooleem ku bokk ci fédération bi muy góor di jigéen sëriñ baa ngi lay sant bu baax di la ñaanalit bu baax a baax a baax eh, rawatina nag mag ñi nga xam ne dañoo nekkan Abidjan te sosoon yoon wi mu dalan ko ci moo du Pen ba mu fa jógee mag ñi nga xam ne nii ñoo yaraat yoon wa ba li li am fa ñu ngi leen di santaat bu baax ndax tolloon nay jamono de man maa ngi ñëw Abidjan dañ daan luyee kër Serigne Touba ñëpp di fa daje ñuy dem ba ay jamono dëkk boo dem réew moo dem gox boo dem fekk fa kër maam si euh, kër Serigne Touba Mbakke te buñ defee daayirab Serigne Touba dañ ciy teg def daayirab Cheikh Ibrahima Fall te buñ koy def doonu ne bay Fall rek ñoo fay teew mbooleem ku sopp Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall da ngay teew ca jataay ba rawatina nag ñii toog fekk naa fa Modou Diouf xel koom mi mu jiite daayirab Cheikh Ibrahima Fall ba. ma njaay njaay jàmbaar la lool ndax mbooleem fu kër Serigne Touba eh, kër maam Cheikh Rafal yegg mbooleem fu taxawaay bi yegg mbooleem fu mbooloo mi yegg ma njaay njaay ma ngi ko fay yóbbu ku boot mbooloo nag da nga da muñ lu ne da nga gis lu ne kan sëriñ bi mu ngi leen di ñaaxaat bu baax yéen waa fédération bi yéen taalibey Serigne Touba yi yéen taalibey maam Cheikh Ibrahima Fall yi yéen soppey maam Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ bi sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax a baax a baax seen taxawaay mat na lépp lu ngeen jëf jébbal ngeen ko Cheikh Ibrahima Fall tey kan sëriñ bi mu ngi leen di ñaan cant ak ngërëm daal am na yàlla na ko yàlla mottali bi jaayil Moustapha jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ bi nee na jërëjëf nañ tàllal loxo tàllal leen loxo yi sëñ Jili amiin La ilaha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 waaw jërë ngeen jëf euh, mbokki taalibe yi euh, liggéey bu tedd bii nga xamante ni fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall euh, indi woon na ko fii ci Baye Fall gi ki fi nekkal Mame Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Amdi Fall Modou Mbenda xalifa général de Baye Fall ñu ngi koy ñaanal sunu borom guddal aw fanam lool ndax mooy xalifa ci baayam ba noppi di xalifa ci maamam waaye ku ne xam ne ni sunu jàmbaar ja Serigne Cheikh Modou Mbenda mi nga xamante ni sëñ Modou Fall Mbenda mi ngi ko duppee moo wuutu sëñ Modou Mbenda 1955 ba 86 mu jël liggéey bépp rek teg ko ci loxo rakkam ju tedd ja euh, sëriñ Talla Modou Mbenda ma nga xamante nii moom la sëñ Modou Mbenda fayee sëñ Mor Talla Fall. mi ni woon ma jox la loo moomee am jàppal ca jaa jëfati li wër mbindeef yëpp lu nu fay fay desey boroti bi fi sëñ Talla Modou Mbenda bàyyi ko nag euh, ki nga xamante nii nag moo wuutu euh, sëñ Modou Fall Mbenda moo wuutu sëñ Modou Fall mooy ñetteelu xalifaam 96. ba tey jii yàlla na fi yàgg loolu ànd ak wér muy naaru maam Khady Niang muy sëñam di Fall du Mbenda di xalifa ci maamam di xalifa ci baayam ñi ngi koy ñaanal gudd fan ak wér waaye di ko ñaanal mbooleem njabootug euh, maam Cheikh Ibrahima Fall gépp rek ñu ko ñaanalee jëwrinam ji jëwrin si am ni Modou Mbenda ñu gën ko xam ci Serigne ceex Ndiaye Mbeng euh, mi nga xamante ni mooy xalifa suñ Mouhamadou Moustapha Fall yàlla na fi yàgg waaye di ko ñaanal sëñ am di Khady Fall xalifa maam Cheikh Sérif Assane waaye di ko ñaanal sëñ Abdou Fall Roqe mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Mor waaye di ko ñaanal bu baax euh, sëriñ Talla Ablaye mi nga xamante ni moo fi nekk sëñ Ablaye Fall Ndar waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Fall Mbawoon mi fi nekkal Seydina Alioune ak mboolu njëwat Seydina Alioune gépp rek di ko ñaanal sëñ Fallou Fall euh, sëñ Abdou Sakour Fall ba ci seen euh, doom ju baax ji muy sëñ Fallou mu sëñ mu daminta ak mbooleem njabootuk maam Cheikh Rahim gépp rek waaye di gërëm suñu jàmbaar ji nga xamante ni moo yëkkati kàddu yu am solo yi nga xamante ni ci kanamu sëriñ bi muy sëriñ Jili Fall ibnu sëñ Mouhamadou Abdoulaye Fall Ndar sànq sëriñ daam nettali na diggante sëñ Modou laay ak ki nga xamante ni mooy sëñ Amdi Fall Modou Mbenda ñoom ñaar dañoo bokk benn turandoo muy Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall naar moom a silla ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ñi mbokkal maam Chérien Fall ñëpp daam kun ko ko fayee kin fayee sëñ Modou Moustapha Fall nag mooy sëñ Modou laay ak ki nga xamante ni mooy sëñ Amdi Fall Modou Mbend ñoom ñaar ñu bokk njaarim ba noppi bokk turandoo muy Cheikh Mahamadou Moustapha Fall eh, mi nga xamante ni moo njëkk wuutu maam Serigne Fall 1930 eh, ba 1950 kon dañuy ñaanal bu baax naaru maam Khady Niang yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér muy sëñ Amdi Fall Modou mbend ku ne xam ne ni sëñ Modou Fall Mbenda toogul xalifa ndax bi fi maam Serigne Fall bàyyi ko 1900 1930 sëñ Modou Fall Mbenda jaayanteeg ci ki nga xamante ni moo fi nekkal Cheikh bi rek muy sëñ Modou Moustapha Fall magam ju baax ji sëñ Modou Moustapha Fall euh, bi mu fi bàyyikoo 1950 sëñ Modou Mbenda dafa jël liggéey bépp rek topp sëñ Mortala mi nga xamante ni ñoom ñaar kenn lañu woon. bi fi sëñ bi bi nga xamante ni nag euh, topp na sëñ Mortala ba 28 décembre 1953 euh, sëriñ Abdoulaye Fall Ndar toog doon xalifa sëñ Modou Mbenda dafa jaayante waat ñu dem ab diir 1955 nag la dogal bi dal ko ca njëkkër ma jéey boobu la sëñ Mouhamadou Fall Mbenda bàyyi koo fi Euh, sëñ euh, Cheikh Modou Mbenda wutu ko waaye ku ne xam ne ni sëñ Modou Fall Mbenda maam Serigne Fall moo ko jàngal maam Serigne Fall moo ko yar maam Serigne Fall moo ko tarbiye lépp lu nekk ci sëñ Modou Fall Mbenda maam Serigne Fall moo ko def ci moom sëñ Modou Fall Mbenda jàngiwul mu jaaxal mam Soxna Fall lool mu ñëw ci maam Serigne Fall ne ko ah, Modou Fall de doomi bàyyi yëpp jàngi nañ te bu jàngiwul dina gàlli mu ni ko maam soxna Fall Modou Fall de lépp lu nekk ci moom dina ko def ci moom te bu ma noppee ci moom àdduna yëpp dina xam ne noppi naa ci sëñ Modou Fall Mbenda tey jii loolu mu agsi tey jii yan bi agsi ci naaru maam Khady Niang bi fi Serigne Cheikh Jëmbu Fall naaru maam jëmb Diop bàyyi ko 2021 euh, Serigne Amdi Modou Mbenda ku yokkul yaa wàññi waaye ku ne xam ne ni sëñ Amdi Fall Modou Mbenda yokku na liggéey bi moom lay wax naan Mbenda joxu nay ba Sala Penda mi des si ngaraaf arɗongo ma fan waawi polbaango mboɓen muɗum mbenda fall jambari carriére waawi muɗum mbenda fall se noon lu ñuy ree waaye di gërëm mboolem njabootuk euh, sëñ mudu fall mbenda gépp rek euh, di gërëm bu baax a baax njabootuk euh, sëñ cheikh mudu mbenda ñu ngi leen di jaare bu baax a baax moo nekkoon caatu sëñ mudu mbenda njabootu xalifa ak mboolem njabootu sëñ mudu fall mbenda gépp rek kon bu ko defee dañuy jox jëwriñ Aliou Thiam mi nga xamante ni moo fi teewal sëñ Makumba ak mbooleem jëwriñ yi fi ne bu noppee ñu doog a ñëw ci sëñ mudu xel ko ñun ak mbokki taalibe yëpp kaddu kaddu yi moom kaddu yu sant la ak kaddu yu ngërëm ak kaddu yu mbégte ndaxte defoon nañ ko daaw fekkee déwén loolu ak cant la di jiital sant beeg euh, nuyoo bi sëñ Jili Fall mi nga xamante ne nii mooy sunu jëwriñ mooy ambassadeur u Baye Fall yi fee ca Côte ak Mali ni ko sëñ bi waxee léegi rek ak fépp fu muy dem di fa taxawal maama maam Cheikh Fall di rafetlu liggéey bi lool ndaxte Baye Fall yi kenn du ñoom mun gisee ñu am cawarteeg di fi teew at bu jot. dañoo ànd ak ñoom liggéey bi Sëñ Tuubaa bi fee ca Côte te kenn mënu leen duñ jàmbat duñ tayal te duñ leen woo bam leen lu naqari bàyyi ko ci ñoom jëm ci ñun ndaxte liggéey bi nga xamante nii dañ suñ ci woo dañ ciy wooy jëwrin bu doon ak ñooma du am solo ndax xam nañ àll metti na te kenn ku nekk daa am loo xamante nii moo la yëkkati muy say say say lijjanti bopp ñoom nag man na ne liggéey sëriñ Tuubaa bi dañ koo jiital ba pare soog teg luñ cay teg kon muy kàddu cant yoo xam ne day bàyyi ko sëñ ma gumba muy jëriñ sëriñ Tuubaa ca Côte d'Ivoire muy cant gum leen cant bu baax a baax a baax a baax ndaxte bu ne Côte d'Ivoire euh, bis yeen fay daje yaakaar naa moo ëpp sax lañuy ñuy daje fii ci Touba waaye bis bu xew ñooy teew lu fa lu fa sotti ñoo fa sottal comme ni ma ko waxoon rek dañuy bàyyi seen yitte jiite yittey sëñ bi ba mu yegg ñuy soog di dem seen i yitte te loolu mooy baaxal ab bis te at mu jot euh, maanaam bis bu saa su nekk ci loolu lañ lañ ànd ak ñoom kon nag lii nga xamante ni dajal nañ ko ren yaakaar naa ne asaka la ci war a ñëw ci la war a ñëw déwén ndaxte ni ko sëñ sëñ Jili Fall tàmbalee di ko coordonné fexe ba Baye Fall yëpp nekk ci genn buum di boole liggéey mu nekk benn ñu ànd ko ak Baye Madiaye Ndiaye ak sëñ Demba fay ak ñu ko àndal loola dañ ci gën a soññ taalibe bu baax a baax a baax a baax ba nga xamante nii lu ñu andi ren li ñu li ñu andi ren nekk asakaam li at sa asaka yi li ñu yor andi déwén incha allah ndax mën naa nekk xam naa ne euh, dégg-dégg bee xaw a des rek waaye bu ko lii bu ko nit ñi gisee dégg ko kenn ku nekk war ngaa góorlu ci addi ji ñuy dajale muy jëm si fii ci liggéey bi ndax nii ko sëñ Mountakha taxawale day képp koo gisee noonu yaakaar naa ne sa dërëm du fanaan fenn fu bu ne Baye Fall nga ci fédération bi sa dërëm foofu lay fanaan waaye doo nekk di di ko jëmale feneen ndax lii mooy dëgg-dëgg liggéey bi nag lii ñuy liggéey di ko yóbbul di ko nuyu xalifa général de Baye Fall ak li ñuy ko dajal di ko nuyu xalifa général de Mouride loolu mooy dëgg-dëgg liggéey kon nag nañ góor góorgóorlu ñu soñ suñ bopp bu baax di ci soññ mbooloo mépp ñu xam ne bu ñu seetaanee euh, euh, cassette bi vidéo bi nan xam ne mooy dëgg-dëgg liggéey bi nañ ci góorgóorlu nit ku nekk fa nga nekk ca commune ba nga nekk bu dee Treichville bu dee Adiame bu dee feneen ak feneen nan nan nan dajale addiya yi muy nekk benn ñu koy daj andi ci fédération bi loolu te ñu ci sant soxna soxna yi soxna soxna Ngom ñu ko imaam bi Ngom ñu koy sant bu baax ci pastéefam ci liggéey bu Baay Faal yi ndaxte moo wax dëgg yàlla ñoo nekkandoo Treichville waaye amul guddi amul bëccëg lépp lu ñuy woote ngir Baay Faal yi moo fay njëkk moo fay mujj tey di jóg ci soññaate kon maam biir ñu lay sant bu baax a baax baax di sant mbokki euh, julli soxna Ndey Mbaw soxna Marème ture ak képp koo xamante ne teew na fi rek jëwriñ soxna si commencé si ñu ngi sant bu baax baax a baax ci liggéey bi di leen xam ne moom ay taalibi Serigne Touba te képp koo xamante nii jóg yëkkatina bu liggéey bu jëm Serigne Touba boo ñëwee da ñu gis maam Cheikh Rafal waxi noppi ndax ñun ay baay Fall lañu. di wax ni rek euh, dañuy sant yàlla baax ni ko Serigne Aliou waxee teew gii ñu teew fii. waaye nag fédération Baye Fall ca Côte mel na ni ñàkkuñu cee xam dara ndax sëriñ dem ba Faye mi nga xamante ni moo nekkal Baye Fall yi foofu nekkal fa sëñ ma Mandiaye ànd ko ak sëñ Papa Seck ak jëwriñam ko àndal yëpp wax dëgg yàlla saa su ñuy teew nga xam ne weer wi fu mu deewee samedi ba ca njëkk danañ daje ca daaira ba dundal fédération bi kon suñuy liggéey ñoo koy ànd xam nañ nañ koy doxale waaye nag bëgg-bëgg bi du lenn lu dul rekk na Cheikh Moustapha waxoon ak njabootam sëñ Modou Moustapha dafa wax ni man dey lu leen boole ci laay dox ba ba ngeen nekk benn su ngeen ko xamee ak su ngeen ko xamul kon booloo dafa jot sëkk dem na ba ci daayira Cheikh Moustapha bi sax àdduna bi yëpp ñu ngi def fédération léegi di dem siyaara ji kon nii nga xamante ni sëriñ Jili Fall moom sëñ Modou Ablaye Fall moom mën nañ ni sax suñ sëriñ la waaye suñu frère la loolu buñ ko waxee moom xam na ko ndax dañoo bokk dëkk Mbàkke suñuy waajur yi jaxasoo moom mii tamit ñu daanaka defandoo nekkandoo gone ca koñ ba waaye sëñ Touba moo bari doole ak Cheikh Cheikh Rafal ay taalibe rek la ñuy doon seen kanam mu yàlla dogal ko mu natt ko ci lu boole Baay Faal yi mu tàmbalee ko ca Mali ñu àndoon doon ko liggéey mu fay liggéey liggéey bu am solo Serigne Cheikh Mbacke Fall moom sëñ Amdi mi mi ngi koy wax léegi ñun Mali lañ ñu fekk waaye pës seef dara andiwul leen fa lu dul boole njabootuk Cheikh Rafal gi loolee nag moo dem ba yaatu dem ba Côte d'Ivoire mu koy doxal mi ngi koy doxal tamit ci yeneen dëkk kon ngeen xam ne seen jiili moom bëgg-bëggam te te muy lu war nag moo di bàyyi faal yi fu ñu mën a nekk ñu nekk benn bu ñuy ñëw di indi liggéey bi mu doon benn liggéey waxuma la dara rek waaye xam ngeen ni sëriñ bi jot sax amu ko te it mag gi gis ngeen fi mu toll. tey ji xoolal daayira yi nga xamante nii ñoo fi dajaloo su fekkoon kenn kenn la sëriñ bi di recevoir loolu nan lañ koy lijjantee. te bu doon téeméeri daayira tamit sëriñ bi moom pas-pasam ak nekkal gi mu fi nekkal Cheikh Ibra dana leen recevoir benn par benn waaye suñu dajaloon nag def ko muy benn jàppal ko benn bis nii kon danañ ko sakkanal boo amee valeur nag da ngay xam ni nga koy sakkanalee kon nag loolu sa njiili ñoo ngi lay ñaanal ni nga ko bëggee ci barkeb sa maam ja maam Cheikh Ibrahima Fall mu defal la ci ndam ñëpp nekk benn nga xam ne ëllëg buñ fi ñëw lii liggéeyal Cheikh Ibra ci àll bi xajuñu ci mbaar mi suñ demee ba nga xam dañoo toog ci benn bërëb nag mënuñu koo fees kon liggéey bi des na waaye nag kuy def lu baax du tayel kon sa njiili noonu dong la xam nañ ni ngërëmal bu fekkoon mbir àdduna ak sa mbir bopp rek xam nañ la bu baax a baax sa lépp mën naa sotti te doo dem seeti kenn waaye liggéeyub Cheikh Rafaal bi moo la tax a jóg kon donc yàlla nga ci am ndam di lancer waale message màggalug basam gi sëñ Xaadim mm-hmm. màggalug basam gi daa ñëw te jàpp nañ ko pare xam naa dina gën a yaatu tey nag sëriñ Mourtada ñoo ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko muy jàmbaaru Côte liggéey bi mu jël ko teg ko ci loxo jëwrin yi sëñ ma Magoumba Thiam sëñ Aliou Serigne baara tey liggéey bi sëñ Mourtada da koo teg ci loxo waa Côte kon nañ ko bokk waajal taxu ñoo jug nag waaye comme daa nekk suñ kanam te waa Côte d'Ivoire rek ñoo fi nekk nañ yóbbaale message boobu te xam ni sëñ bi bëgg na koo yaatal ndax li tax mu bëgg koo yaatal moo di fi mu daan nekk dafay xaw a xat mu fexe ba génne ko ci diggante tabaski ak màggal suñu màggalee gàmm ba ñëw ñu daal ciy jublu ndax basam suñuy mbir la sëriñ bi moo fa jaaroon te bañ na ko ba bindal ko aw bayit azhabta andillah fii garam basa hablu mubaris wa an yaxal basa dëkk boo xamante ni sëriñ bi jaral na ko mu jël ko dugal ko ci biir mbindam mi kon ñun waa Abidjan war nañoo santaat bu baax te waajal bis boobu ñaan suñu boroom ñu àgg ci ak jàmm. tey jii lañ am ñaar fukki at ak ñett bi ñu indi liggéey bii. kon tey jii lañu am ci ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne ñoo ngi indi liggéey bii kon nag lu dox ñaar fukki at ak ñett loolu ay caaxaan néewatu ci lu dox ñaar fukki at ak ñett màggaayu waaxambaane la kon yaakaar naa liggéey bi jërutu sa wax sax mi ngi dox xam nañ ne mi ngi dox ndax fan ko tàmbalee fa yan ba tàmbalee woon cate woon na lool ndax léegi laa koy wax rek ndax ñeen fukki junne lañu fi tàmbalee moom laa njëkk a nuyoo suñ mu deminte kon nag bu nu yëgsee ba ci tey ñu naa ñetti million lañuy joxe loole kon dox na man nag mënuma cee sori xanaa sant rek ndax boo amee ñu la waxal wax dalay jafe soo amee ñu la waxal te dama am ñu ma waxal su ma waxee lu ëpp danaa xeeb seeni wax su ma waxee lu doyadi danaa mànkil seeni wax kon man li may wax daal mooy yàlla nañu yàlla defal fan wu gudd ak wér eh, li may ñaanal mbooloo mi daal sama borom defal leen fan wu gudd ak wér Euh, gën a nammaat xol yi ak xel yi ba saa su ñu mën a indi lu ëpp leen indi woon ay pas-pas bi ak pëstéef bi moom foo koy natt rek sëñ bi weesu na waaw man fii moom du fi mën a wax dara lu dul sant rek sant dong lay mën a wax rek ndax keroog ba may jóge Dubaay di ñëw sëñ bi di ma jox liggéey Cheikh Ibra Fall bii xeebu woon na lool. kon nag bu nuy yàlla di dimbale ñu ne ci ne ci ne ci ba am ñu nuy sotle kon sant yàlla la. dara lu ñuy def daal lu dul sant yàlla ku ci mën di jàpp ak ku ko mën di ak ku ko di doxal daal yal na yàlla guddal soo fante doo li wér gi loolu daal man sëñ Xaadim loolu laa mën a wax. doore nag sunu euh, ziar ci sëñ jiili Fall mi nga xam ne euh, waajuru maamam lan tudde sama baay di Ablaye Ndaw moom Baye Cheikh Ndaw yaakaar naa ko xamu dégg nga ko mu def ci moom lu bari kon sëñ Jili ñoo ngi lay ziare bu baax a baax mu mel ni daaw bi nu toogee fii am na lu doon sakku te mu lépp nag di ndigal ndigal kat mam Cheikh Fall moo wax ne ab Baye Fall bu ne wala murit bu nekk ci ndigal la war a taxaw ndax ndigal kat dan ne boo ci nekkee dun la dugal dun la mbugal li nga xam ne dun la dugal dun la mbugal nag ci loolu nga war a sax kon nag sàkku gi yëpp moo nekkoon ndigal li nga xam ne danoo war a nos suñu bopp ci génn buum jox ko sëriñ bi te yaakaar naa sëñ ji li nga ci taxaw lépp def ko ci yaakaar naa résultat bi lii la waaye ni ko sama baay mu juuf waxee nag nga xam ne ba mu dooreeg léegi dañ ne taxawaayu waxambaane la waxambaane nag daa war a daw waaye wërtu dox kon na dox mbir mi na bañ na bañ a tee dox na na na na daw na daw daw googu it nag soxna yii jàkkaarloog ñun ay jàmbaar lañ ci kenn ku ne xam na ne soxna Sénégal jàmbaar lan ci lépp lu mën a doon lépp lu loo gestu gis leen rek sa xel dina gën a dal sa yaakaar dina gën a dolleeku kon ñu ngi leen di ñaanal yéen soxna yi seen kàttan ak seen doole ak wér gu ngeen ko mën a ànd seen góor yi ngeen koy am ndax wax dëgg taxawaay bi am na solo waaye nag ci njabootu Baye Cheikh Ndaw sëñ bi damaa yónni ci yéen mooy di leen jaale li ñu bokk muy sëñ mbay Ndaw mi nga xam ne nekkoon ngeen moom kon sëñ bi ngi leen koy jaale man mii moom lañ ma tuddee moom ma yóbbu woon Côte d'Ivoire 97 ba 2002 kon maa ngi leen koy jaale ci sama tur waaye di leen ko jaale ci turu njaboot gi sëñ ma Ndiaye Ndiaye taxawaay bu mu ca taxaw ak sëñ Demba fay ak sëñ Ousmane Niang ci ñaanal gi ñu ko fa doon ñaanal ak la ngeen ko fa bàyyeekoo indi ko njaboot gi jot nañ ci kon nag loolu ñu ngi leen ciy sant sant goo xam ne am na tàmbali waa amutab yamukaay ndax bu yàlla dogaloon mu wàcce fayit coono bi ci yéen lay gën a kii ndax waxtu wi daaw la fi ñëwoon bi weeru koor wi jàllee mu ñëw njaareem wàcc fa kon loolu yëpp liggéey mag ña la kon loolu ñoo ngi ciy sant fédération Côte waar yëpp te xam ne yëg nañ ko nag ndax dañ ne kat genn ab golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko kon ànd bi ñu doon ànd ak yéen kat rëccuwuñu ko kon ñoo ngi sant sëñ Mbaye Ndiaye bu baax ak ñi mu ànd liggéey bi yëpp sëñ Ousmane Niang macha allah dañuy déggante sëñ Demba Faye yéen ñëpp ñoo ngi leen di xaare bu baax a baax sëñ mu Moustapha mbay ma nekk Côte d'Ivoire moom it jataay bi xel mi yëpp mu ngi fi ndax boobu ba tey moom mooy woo naan ma bis yàlla sàkk daaw bëggoon na maa ñëw waaye yàlla dogal na mënumaa ñëw ndax dafa am liggéey bu ñu ko sant foofa ca kër maamam kon moo ngi leen di teewlu ci liggéey bi waaye ñoo ngi leen di sant daal di sant ñu nit yàlla bi nga xam ne fekkee nan ko di ko ñaan ñu fekkeewaat ko ay déwén kaddu yi ma yëkkati daal mooy kaddu ay sant ak gërëm ak ñaan te loolu itam maa ngi ko jëmee ci suñu jëwriñ jee di sëñ ma Diouf ko mais ak sëñ Amdi Fall mii ndaxta nag dañ ne tabax bu dëgëree kat fondement ba moom ca la te fondement ba moom moom mee la ndax wóor na maam Cheikh ba ñuy xalaat aw turam man ma bokkoon ca ñi koy doon xalaat moom mee yëgu ko ñu ne moom kat moom moo ñu mën a lig indil liggéey bi fii mu indi ñu ko ba fii macha allah moo tax ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bëgg ñëpp nag xam loolu ndax ku dëggu la woon turu xel kom wooye mu def ci turam. noonu la daan doxal ñun loolu nag moo tax man wax dëgg yàlla jamono ju nekk tam damaa bëgg di ko leeral nit ñëpp te tam ba jamono ba jëm yàlla tey jii moom mooy jëwriñ ji Mandiaye da ko faa nekkal rek waaye moom mii mooy jëwriñ ji bis bi mu demee ba toog ba mënut a ñëw mën mii maa ne Mandiaye liggéey bi il faut nga yor ko Mandiaye sax boobu xaw naa ki waaye dama ne ko il faut nga yor ko Mandiaye continué ko yor sëñ Mat Diouf ak sëñ am Amdi mii ñoo ngi leen di sant di leen gërëm sëñ Jili nag. moom moom mooy suñ jëwriñ ji ñuy euh, teg ci yoon wi waaw waaye ñii nag moom dañoo bokkoon ak ñun liggéey ba ànd ak ñun liggéey ba ba ci ndax man liggéey ba fa mu tàmbale ba fa yem ndax laata muy tàmbali itam daayira ba xam naa ragal naa ne daayira ba ba mu doonee tubaa a Adjamé man def ragal naa ne man rek maa ci des fi mu toll nii ca ña nga xam ne ñoo daan kii yëngu ci daayira bu yëngu yëngu bi bi mu ñëwee tam liggéey bi eggale na ko fii wax dëgg yàlla sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ci turu jëwriñ yépp nag wax dëgg yàlla yombalal nga ñu lépp ndax koo xam ne da fii la ñun fële lañ ne li nekk fii yëpp nga ñu koy liggéeyal dañu ko tegal ci yoon ba ñu toll fii te li gën a am solo da ngay seet lettre yee lettre bu njëkk ba ba ci lettre tey bii lépp a ngeeg moom loolu nag ak farlu te la ndax loolu firnde la sëñ bi daal yaag sëñ am di mee daal nga xam ne moom yéen ñu fi nekkal ñoo ngi leen di sant waaye nag sa bopp nga fi nekkal ndax yaay jëwriñ ji tey yaay jëwriñ ji ëllëg jëwriñ moom kenn du ko wàccee te muy fee nag ma Ndiaye dala faa nekk rek jërëjëf. di leen ziar yéen ñëpp nag di leen wax ni taxawaay bi rafet na di ziar nag ña nekk Abidjan di wax ni nag liggéey bi du ñun ñi dong ñun ñëpp la bu ñu demee ba toll fii ñoom ñoo ci jàpp ndaxte benn loxo moom du tàccu te yaay faal yi ay jàmbaar lañu subaa ngoon ñu ngi yëngu dara ñorul leen lu dul Cheikh Rafaal su ma jëlee téléphone bi ba woo leen ñoom ñëpp ñooy sawar a ñëw yes si te euh, nag sëñ bi jar na ko ndaxte xam nañ ñu fi mu ñu jëlee at fa mu ñu yóbbu di ñaan yàlla nag di di ziar sama jëwrin Baye ma Ndiaye sëñ Demba maa ngi leen di ziar ndax Baye ma Ndiaye it bàyyiwuñu subaa ngoon mi ngi ñuy soññu ndax jigéen kat moom buy liggéey day soxla mbokkum taalibeem góoram jëwrinam nekk ca wet ga di ko jàppale te toujours nag ñu ngi ñuy jàppale di ñu ñaax sëñ sëñ Alim Thiam ñoo ngi koy nuyu suñu jëwrin jooju di ñaan yàlla nag yàlla defal ñu xéewal gu bari ba ñuy indi nag àdd ju bari di ko takk di ko indi fii di ñaanal sëñ bi yàlla na fi yàgg lool te wér sëñ xaadim ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax kontaan nañu torop yàlla nañ yàlla defal boole ñu ci biir yaadeeru sëñ bi nag ñu gën a mën a liggéey waaw soxna yi ñoom ñëpp nag ay jàmbaar lañu ngeen dolli leen a ñaanal. sëriñ bi nee na kàddu yi kàddu yi cant rek la ak kàddu yi ñaan ak soññee. ci ndigalu sëriñ bi fi jaaroon rek ba niñ ko bëggee li ci ëpp am na ñu gën a soññeewaat gën cee taxaw yokkaat suñu pas-pas ndax nit kat li muy sàkku ci sëriñam te bëgg ko ni ko sëriñ bi santee rek ni ko sëriñ bi bëggee ni ko rek noonu lañ ci mën ne amee ngërëmam sëñ bi lim bëgg njabootam gépp soppi gépp nañ doon benn tënku jëfe ndigal bàyyi tere li sëñ bi yittewoo muy ñëpp ànd kon nag ñu ngi jotale kàddu googu di ko jaale Baye ma Njaay Njaay mi nga xam ne moo fi nekkal jëwriñ ji nekkal fa sëriñ ba mu ak si taalibe yëpp ab taalibe ne moo xam ne yaa mu sukkuro wala Gañwaa wala Côte d'Ivoire gépp ndigal laa ngoogu ñu gën a góorgóorlu bu baax di leen sant nag jëf jii ngeen jëfal maam Cheikh Ibrahima Fall comment commencé woon ko ci benn maam agsi fii ma agsi bu déwénee yàlla na yokk barke maam Cheikh Ibrahima Fall di sant mbokki taalibe yi fi yëpp di si jiital sëñ Modou Diouf xel kom moom mi nga xamante ni moo jiite liggéeyub Cheikh Ibra Fall bi ñu àndan ko ba suñu borom dogal mu ñëw fii ci tool yi ngeen nekk fa di doxal liggéey ba lépp lu ngeen ci sàkku lu ngeen ciy wut yàlla na ko suñu borom defal di beral sëñ Ousmane Niang ndax alal daa foor ku la ko dénk ren ba déwén laaj la nga jox ko ko dara manqué wu ca mbat naa sant ñu ngi koy sant bu baax ak jàmbaaram dug jàmbaaram am ñangeen moom mënta jàmbaare <laughs> sëñ bee ko dimbali rek waaye ñangeen bu ju bëriwul ñu ngi sant rek dañaan mag ñi fi teew bu ñu àggee daal liggéeyub sëñ baa ngi nii ndigal laa ngi nañ ci góorgóorlu rawatina soxna yi ñu ngi leen sant bu baax soxna maam biige ngom sëñ baa ngi sant di leen gërëm seen taxawaay ci liggéey bi dara umpuñu ci waaye bu ngeen demee ngeen yokkaat seen taxawaay seen pas-pas ndax fu góor mës a taxaw jigéen na ko dooleel bu ngeen góorloo rek ci liggéey bi maam Cheikh bi ñu ngi sant ñëpp sëñ Mbay Ndaw sëñ Assane Gueye sunu kilifa gii di sant ñëpp. liggéey baa ngoog buñ limee day juum liñ tax a jóg mooy maam Cheikh Ibrahima Fall te gis na liggéey bi sant na leen gërëm na leen li ngeen fi wut si te suñ Tuubaa ak Cheikh Ibra rek tax yàlla na leen ko defal maam Cheikh Ibra Fall dafa waxoon ni ku am na ma gërëm ku ñàpp na ma xarab sëñ Tuubaa jox na ma lépp ba mu doy luñ ko jox nag yàlla na sar ci taalibe yëpp barke maam Cheikh na ñëpp tàllal te wax amin te dugal ci aaj yëpp. saxaar gaa ngi déq bisimilah. Oui.